jàmbar ça veut dire que kon collaboration bi dafa mel ni yaatal la ko euh, euh, ki nga xam ne moom mooy Eric Favre loolu la def parce que tamit xam naa dafa bëgg a liggéey te ñoo ñëpp ku ci nekk am na loo mën a loo mën a kii songatin songatin naka mu songatin waaw saba naa nga def songatin naka yëngu yi yëngu yi waaw yëngu kii rek. Ah, préparation. waaw waaw maa ngi góorgóorlu rek. yaa ngi góorgóorlu damay préparé léegi léegi. Mm-hmm. waaw après d'ici d'ici un mois. waaw je sais trop près. Mm. oui. mais songu Bou Siteu. oui Bou Siteu temps yi yaram bi daa tàng de. a ah, nee Bou am na problème vraiment am na problème. billaay. xoolal Bou Siteu mu ngi ne xool ko kos la laal de. nga ne Bou Siteu mi na problème. non Bou Siteu il ne pas faire combat avec costume comme ça moi c'est je peux n'importe quand avant de venir ici j'ai bien donc. Euh, Je ne veux pas porter comme costume. Parce comme, que... comme Boussouta. Hein? Zal Besset. Ménage c'est pas saison ménage c'est dans Zal Besset. Ménageur, ménageur oui. Besset. Oui. Oui, ménageur Besset. La ménage est il faut pa porter costume comme ça. Hein? Comme Non, c'est pas la fête. C'est pas la fête pour toi. Ouais. Un costume. Oui, c'est pas, pas bon pour Boussouta. Oui, je vais désirer deux. Comme ça. Je vais désirer. Désirer les costumes. incha allah incha allah que tu tu as euh, tu des combats ou bien ici au au Sénégal la lutte. la lutte la lutte simple. lutte simple oui. Mhm. mais je n'ai jamais fait de kickboxing. kickboxing lui il a fait une fois kickboxing mais je n'ai jamais fait mais euh, je pense qu'il n'y a pas de problème. c'est son premier combat. moi. toi c'est ça. c'est premier combat de kickboxing. de kickboxing. Mais je vais bien préparer. Tu as bien préparé. Oui. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup. Songo Tine. Jërëjëf. Tu es de quelle nationalité? Japon. Japon. Japon. Japon. Je viens de Japon. Borom Japon. Borom Japon. Oui. Borom Japon, Borom Thiès. Borom Japon, Borom Thiès. Oui. Tu habites à Thiès? J'habite à Thiès. OK. Mm. Depuis quand? Depuis 2017. 2017. Mm -hmm. OK. Thiès neex na. Thiès neex na trop. Mm. C'est tranquille. C'est tranquille. Oui. Aussi, il y a beaucoup de fans de moi. Mm, oui, il y a beaucoup de fans, oui. Mm -hmm. Ici au Sénégal. Ici au Sénégal, oui. Je suis vraiment content. Eh, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Ok, Songo. kooku mooy Songo Tine Pape Faye. Euh, le japonais japonais sénégalais. bu neexee nga waxee ko noonu moom nag moom ak Bou Siteu ñoo war a jongante muy loo xam ne xam naa ne ca kickboxing ba bu ñu ca yeggee ñoom ñaar dina neex lool dina metti xaw ma nag ñoom ñaar ku ku war ëpp doole wala ku dàq weq dóor. Mhm. Ah nii. 키스끼리야 싸 치퍼스끼리냐 Il n'y a ma tuuti rek non non tuuti rek tuuti rek zal tuuti rek waaw mais zongo sa waay ñeme na la de mais lii lan la. kii non lii lan la. lii lan la kii xamul kii xamul lu <laughs> Yambal là comme ça. Yambal là. le 6 juillet. On peut porter comme ça. On peut poser n'importe quand. On peut on peut poser n'importe quand. Hein? Le 6 juillet. Hmm. dinaa ko dóor ba mu kaawte. non non kii kii dama koy kaawte. kii na nga ak nga xamoo dara. la la xay la la. kii xamul tous si king boxing. ngay dugg si king boxing. kii kii xamul dara kii xamul dara. bu si tax xamul dara de. xamul dara. bu bu bu. di wax rek. non kii. Eh. télévision et média wax rek wax rek. kii nga may laaj man maay. Bou Siteu comédien c'est pas lutteur. Bou Siteu comédien. Bou non Bou Siteu grand comédien au Sénégal. Eh, Bou Siteu niveau la. <laughs> Hmm? non non yow. comédien la non lii naan la lii naan la mais bu kickboxing bi ñamoon nga ko ca Laurent mu neex. nga tollanti waat waaw ma tollanti maanaam sport dama koo mën. waaw te te te te Bou Siteu bu jugee jeunesse bay génn topp ko. jeunesse bay génn topp la te jeunesse bi dañuy xaar Bou Siteu si beneen mhm. sport muy pratiquer. Ah. loo xam ne rendez-vous léegi léegi. acca Bou Siteu ngoog mën naa si baa ngi koy yóbbu acca zongo wuyul zongo wuyul acca dem leen prenez dem leen jël seen place yi ñu ngi leen di woo pour ñu jël pour ñu war a jël seen place.